gàttu mbokk yi ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ñëw indi ay eh, gis-gis yu gàtt rek ci eh, xeexu Palestine bi ak Israël eh, gannaaw bi nga xam ne nag ñun ñëpp ñoo ànd naqarlu li nga xam moo fa am ndax ci ñaari critère benn bi mooy en tant que ay jullit ñoom ñu suñu bokk jullit waaye en tant que être humain ñuy ay doomu aadama nga xam ne yàlla moo leen sàkk ñoom ñëpp ci ko suuf yàlla bëggul kenn kuy euh, gotti ak moroom ji wala di ko tuutal wala di ko bu doxatal di ko noggutu da rawatina di ko di faat ay bëkkan kooku jullit ak ku di julli lépp ci am lu dul ci lu dëgg lu dul ci dëgg te ñëpp xam nañ ne xeex Israël palestinien bi loolu ci dëgg kon ñaar yooyu war naa tax ñu naqarlu ko bi ci njëkk mooy ay jullit lañ bi ci nekk ay doomu aadama lañ waaye mbokk yi ñu indi ci gis-gis bu gàtt rek boo xam ne danañ ko mën leeral tuuti partagé ko ak ñi nga xam dañuy xalaat ak ñi nga xam ne Euh, maanaam mbir bi yittal na leen mooy euh, dañoo jàpp ne échec la bu am doo xam ne ci umma islamique bi da amee waaye échec bi mi ngi amee ci ñoom ñi nga xam ne ñoo gën a jekk gën a yell ci euh, jàpp ci wax yàlla sunu borom subhaanahu wa taala ak roy ci maanaam waxi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te mooy arab yi mooy naar yi ndax ñëpp xam nañu mooy Noreyaan foofu moo nga xam ne fële Palestine nekk ay mbokkam rek ñoo ko wër ay mbokkam rek ñoo ko wër yoo xam ne ñoo bokk deret ñoo bokk ay maam waaye ñu bokkaat diine ñu bokkaat diine léegi lu tax ñoo xam ne xëy na ñoom ñoom bokkuñu deret wala bokk xëy na mën naa bañ a demee noonu waaye bokkuñu diine tamit lu tax ñooñu di lu tuuti ba pare mën a ñëw foofu mën a fekk ñi nga xam ne gox ba la leen wër lépp mooy Norya seen i mbokk yu bokkal deret ak seen i mbokk yu bokkal diine ñoo leen wër ci côté bu ne boole ñu leen bu ndox daal dina rey guddeeg ba ci ñëpp teg seen bët. ba ñi nga xam ne sori nañ leen lool waaye bokk ñoom lislaam di ko naqarlu loo xam ne ñoom sax naqarluñ ko loolu dañoo jàpp ne euh, li ko waral mooy lépp rek la ñu alxuraan karim doon junju yàlla su ma soxna waxoon ñu ko ne bu ngeen ci wéyee def ko euh, seen lépp ay jëkk seen lépp ay baax waaye bu ko bàyyee rek mooy euh, seen lépp dara du baax te loolu ñëpp xam nañ ne alxuraan karim saa su ne yàlla day woote ci bennoo ci nosu ci ànd nekk benn ngir loolu lépp yàlla njariñ li ci jublu mooy ëllëg dina ñëw bu ngeen booloo nekk benn kenn du leen mën a dara waaye bu ngeen tàqalikoo seen i noonu mënal leen wa atiu llah wa rasulahu wala tanazaau fa tafchalu wa tadhaba rixakum wasbiru inna laa maa saabiriin ko yàlla wax ci alquran karim loolu booba xew-xew yu mel nii rek la yàlla xam moom mi peeg lépp yàlla bi xam moo peeg lépp xam jamono xam lépp xam li ñëw ak li ñëwagut xamoon na ne tàqaliko mën naa am waaye ngir bañ tàqaliko am moo tax mu digal ñu neen nekk leen benn ngir am benn yenn ngir ngeen nekk benn force ngam kenn du leen mënal dara waaye gis nga bi ko naar yi teggee arab yi teg ko te lépp ngir topp ay intérêt àdduna topp politique loolu moo ko waral topp ay ay royaume loolu moo ko waral sàmm seen royaume la ko dalee Arabie Saoudi wàcc ay Égypte wàcc fépp rek foo dem ba ci Jordanie ba ci fépp foo dem euh, sàmm ay intérêt ak seen i nguur moo leen moo leen jaral ñu laamisoog ànd ak ñoo xam ne tey jii ñooy noggutu ñooy rey devant public yi bëti doomu aadama yëpp ci àdduna bi rey nu ñaaw noggutu gu métti métti seen i mbokk. lima ko wax direct ak seeni mbokk ci walu diine ñoo leen xoqatal te ñom ñu xalaatuñ ci addu sax addun wo xamne dana dëgër comme ñun niñ ko addo ci senegal ak yeneen réew Afrique ak yeneen réew julit ci nga xam sori nañ leen kon loolu liko ko waral lépp mooy ñàkk ànd ak top ay intérêt intérêt yu nak tay mo waral li lepp mo waral lepp donc kon jàpp nañu kon mbir mi pour musafaru deug deug te ñun ñëpp bëgg nañ musafaru saafaru liñu wara def rek euh delaat buum ci boy boy bu moy wax ñi nga xam ne ñoom ñooy arab yi ñi nga xam ne ñoom ñooy ñooy jullit yi nga xam ñoo leen war foofa nañ delluwaat ci li yàlla su moom sota waxoon xam ne innamal mu'minuna ixwa jullit jullitee mbokkam li yent sens al muslim axul muslim jullit jullitee mbokkam ñu jéem a sànni intérêt yi intérêt yi adduna yi du yomb nag du yomb ndax ñoom ay ay gëmuñu ko sax gëmuñu ñoom naar yooyu sax muy buur yi gëmuñu sax wàllu diine ñoom li ñu gëm mooy seen royaume yi lañ gëm waaye nag ñun en tant que xam mbir mi dëgg-dëgg di fan la sooxee ni ko alam jaa di waxee wañ gi ma nga bañ a njàmbaxan mooy ñoom dañoo toppatu diine topp sopp intérêt yi àdduna topp ay royaume loolu moo leen waral ñu maanaam coalition def ay ay àndandoo allié ak américains yi def allié te américains yi ku dépp ku def ñoom danga euh, da nga def ak indirectement allié ak Israël ndax Amérique ñoo ngemb Israël donc kon euh, loolu foofu lañ leen foofu lañ leen foofu lañ leen jekkoo te jekk googu ñoo ko tey sax ndax gis ngeen Arabie Saoudi euh, jamono yi kii toog Joe gis ngeen politique bi ni mu changé waatee ñu gën a dawaat uti américains yi te fekk Trump avant mu fi jógee signé ay convention Israël dugal yu bare bare bare xam da leen gën a aar dem na ba armée Israël ak armée Amérique léegi benn lañ loolu laal armée Israël day laal armée Israël euh, Amérique loolu laal armée Amérique laal armée Israël donc ay convention yoo xam ne yëpp ak xotsu mu xotsu googu Jérusalem mu wax ne mooy capital euh, léegi euh, juif yi donc yu yëpp ay convention yoo xam ne nit ñi seetaan nañ ko ñu am donc mbir mi dana gën a difficile dana gën a jafe pour ñu résoudre ko pour ñu régler ko waaye daal pour jullit ñi xam bu wér ne ñun li ñu war lépp ñu yeewi jullit ñi xam Afrique lañ nekk yàgg nañoo taxaw taxawaay boo xam taxawaay métti la taxawaay jàppale la taxawaay soutenir la waaye koo xam da ko sori muy sa mbokk nga sori ko pour nga pour pour nga pour nga jàppale ko dëgg dana jafe ndax am nañu ko gënoon a yell gën a jege fuuf war ko mën a jàppale jàppaluñ ko ndax ñooy trahir nañ ngir ay intérêt ngir ay royaume ba tax na euh, li am Israël lu métti lay doon yàlla rek moo xam kañ la koy jeexal waaye dana doy waar lool pour mu réglé wu donc nag ñun liñ man rek mooy jullit bu gisee lenn naqarlu bu ko mënee dindi loxo mu dindi ko mënuñu ko bu ca mënee wax na ko wax wax lañ man ak naqarlu donc loolu rek dañuy wax waaye problème bi daal mi ngi nii ay intérêt ak i topp ay nguuri àdduna moo tax ñi leen waroon jàpp seeni i mbokk leen ànd ak ñeneen asalaamaaleykum